Assalamualaikum warahmatullah. Très chers amis auditeurs, par la grâce de Dieu subhanahu wa ta'ala, puis avec l'aide de notre sœur Sokhna Adja Aïssatou Sarr, nous sommes ensemble en cette occasion du Gamou pour nous remémorer les enseignements précieux du prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Je dirais à l'entame de mon propos que depuis Adam alayhi salam jusqu'au dernier des prophètes, notre prophète Mohammed, paix et salut sur lui, tous ceux que Dieu a envoyés en tant que messagers ou simples prophètes ne sont venus que pour réaliser une promesse divine qui est de ne jamais abandonner l'humanité à elle-même. mbokk yi ñu dellu sant yàlla subhaanahu wa taala mi nu wërsëgal nu mën a daje daje ci bis yu tedd yi jullit ñi ci gox yu fasantikoo taxaw di fàttalikuwaat ñu ni fàttaliku judd yonent bi sallallahu alayhi wa nga ni fàttaliku jàngale yi mu indi jële ci borom bi subhaanahu wa taala ndax mbokk yi umpale ni li ko dale ci sunu maam aadama ba ci yont yàlla muhammad xaatamul ambiya li fi dox ci yonent yépp lenn rekk lañu ñëw mottali dikk bu yàlla dig jaam dige na ni du bàyyi nit mukk muy tuñux tuñuxi ci àdduna di seet fu muy jaar à la fin de la période de du stage de formation que Adam et Ève ont vécu au paradis, Dieu subhanahu wa ta'ala leur dit ceci. Descendez vous deux du paradis pour aller sur la terre, où vous serez ennemis les uns les autres avec Satan. Mais attendez-vous à recevoir de moi une orientation. Celui qui la suivra évitera de s'égarer et d'être malheureux. Quant à celui qui s'en détournera, il aura une vie misérable dans ce monde et sera aveugle le jour de la résurrection. Versets 123, 124, sourate Taha. L'orientation promise dont il est question ici est le mode d'emploi de notre vie sur terre. car naturellement, l'homme étant un étranger sur terre, fraîchement arrivé sur terre, n'ayant rien créé sur terre, ne comprenant rien de ce monde-là, avait besoin d'un mode d'emploi ou si vous voulez, d'un guide d'orientation. Et c'est ce guide d'orientation qu'à chaque étape, pour chaque peuple, les messagers sont venus remettre à l'humanité de la part de Dieu le Tout-Puissant mbokk yi yàlla subhaanahu wa taala jaarale sunu maam Adama Awa ci aljanna jàngal leen fa jàngale yu bare yu leen war a jëriñ ci su seen dund suuf nga ni def nañu formation formation bi jeex na ñu war a nag wàcc ci bërëb bi ñu koy appliquer borom bi ni leen ihbita minha jamian wàcc leen yéen ñëpp yéen ak iblis baadukum li baadin adu ngeen noonoo ci seen diggante waaye nag fa imma yaatiyannakum minni hudan fa man tabia hudaaya fala yadillu wala yashqa saa su nekk nag danaa yebal ndaw mu indi njub njub googa bu ñëwee ku ko topp doo sànku doo toskari wa man arada an dikri fa inna lahu maishatan danka waaye nag ku jàdd du li may jox yonent yi ñu koy indi kooka dund gu karaj rek ngay am ci kaw suuf wa naxshuruhu yowma alqiyaamati ama buy dekki ëllëg ci àllaaxira day silmaxa du gis suratu taaha nga ni njub googa yàlla dige woon moom mooy naka la nit wara dunde ci kaw suuf nan la war a doxale ci kaw suuf ndax xam nga nit gan la fii defu fi dara fentu fi dara lépp da ko fi fekk mu laaj nag comme mu ngi door di yegsi mu war a xam wan yoon lay jaar fan la war teg tànkam ci kaw suuf nga ni téere yooya walla njub yooya di war a tax nit tege ci yoon loola rekk la yonent yi dikk di ko jox doomu aadama yi jële ko ci borom bi subhaanahu wa taala nu ñaan yàlla mu wërsëgal nu nu bokk ci way dégg yi mën a topp loola yomb naka yàlla nu ko defal ذلك الملهوف يا عظيم الجاه زارك التسليم من يد التعظيم زارك التسليم من يد التعظيم يحمل التكريم بصلاة الله Ainsi comme nous l'avons tous compris, Le seul rôle des messagers et des prophètes de Dieu, paix et salut sur eux, c'est de nous remettre le plus fidèlement la guidée qui leur est donnée par Dieu subhanahu wa ta'ala, non seulement nous remettre, mais nous montrer par l'exemple, par la pratique, comment nous devons appliquer ces textes et ces orientations. Si dans cette vie terrestre l'importance d'un individu se mesure à la manière dont il s'acquitte de ses responsabilités, alors vous pouvez dire que la valeur d'un messager dépendra uniquement de sa clarification du message pour que ce message soit à notre portée, à la portée de l'humanité qui est le destinataire. yi yéen ñu tedd ñi baaxoo ànd ak nun ci bis bu tedd bi dangay wax ni bon yonent yi dara taxul yàlla yebal leen lu dul ñu joxe yóbbante bi waaye wone ca nañu koy jëfe ñoom ni nii kat la ñu war a jëfandikool yàlla subhaanahu wa di joxe mbokk mi nga ni àdduna nit fullaam ak faydaam ñu ngi koy natt ci ni mu taxawee ci ay wareefam nga ne bon yonent yi itam seen teddangal mu ngi nekk ci leeral bi ñuy leeral li leen yàlla subhanahu wa taala jox waaye ni ñu koy wàccee ci doomu aadama yi ba doomu aadama mën koy dunde di ko jëfe saa su nekk Dieu subhanahu wa taala a dit au prophète Muhammad paix et salut sur lui ceci Avant toi, nous n'avons envoyé que des hommes, pas des femmes, des hommes à qui nous avons confié nos révélations. Interrogez les gens du livre sur ce point, si vous ne connaissez pas les livres saints. C'est ainsi que nous te révélons ce livre, le Coran, pour que tu expliques aux hommes le message qui leur est destiné, qui leur est adressé Peut-être réfléchiront-ils. Sourate l'Abeille, versets 43 et 44. lii ma la wax mbokk mi moom la yàlla subhaanahu wa taala di wax yonent bi sallallahu alayhi wa ali mu ngi koy wax ca suratu naxli ko wa ma arsalna min qablika illa rijalan nuuxi ilayhim lu jiitu yow ma lay yebal te yaa tëj bunt bi masuma yebal lu dul ay góor ay góor ma leen di déey li ma yéene àdduna bi fas alu ahla dhikri in kuntum la taalamun yéen nag laaj leen ñi yonoon téere yi di ko jàng su nekkee yéen xamu leen bil bayyinaati wa zubur li ne ci téere wa anzalna ilayka zikra noona laa la yenke yele téere bi li tubayyina linnaasi ma nuzzila ilayhim ngir nga leeralal nit ñi lii ñu leen yóbbante wàcceeka ci ñoom wala allahum yatafakkaruun su ko defee ñu dund ci àdduna bi dund gu tege ci xel ak xalaat telle est la tâche des prophètes et des messagers la seule raison d'être des prophètes et des messagers, c'est leur message. Et le Coran de dire, ô messager, transmets tout ce qui t'a été remis par ton Seigneur. Si tu omettais le plus petit détail, alors tu n'aurais pas transmis son message. Et sache qu'Allah te protégera des gens. Sourate la table verset 47 67 de là je te dis donc très cher frère la naissance du prophète Mohammed paix et salut sur lui réalité vouloir magnifier son message le message qu'il nous a délivré C'est à cause du prophète Mohammed, paix et salut sur lui, que le monde a été créé, que les hommes ont été créés. Alors tu peux dire aussi que lui-même, notre bien-aimé prophète Mohammed, paix et salut sur lui, a été créé pour le message qu'il devait remettre à l'humanité mbokk mi borom bi subhanahu wa wax ngir wane lan mooy liggéeyu yonent ci kaw suuf nga xam ni bu ko ratee rek échec na mu ne yaa ayyuha rasul balligh maa unzila ilayka min rabbik yow yow ndaw li ma yebal yow yonent bi muhammad alayhi salaam joxeel yóbbante bi ma la jox mu tukkee ci sa borom wa in lam tafaal loo ci denc rekk joxewoo ko fa ma ballaxta risalata ma ngi mel ni joxewoo woo dara wallahu yaasimuka min naas bul ragal ndax yàlla moo lay aar mooy sa garde du corps sa diggante ak nit suratul maida laay juróom benn fukk ak juróom-ñaar nga mën a wax bon ni màggal gàmmu dellu si taxaw jàngat juddu yonent bi sallallahu alayhi wa ali nga ni juddu moom kenn du ko jàngat waaye dundam lañuy ñuy jàngat loola li muy tekki mooy jàngat téere bi mu ñu jox ndax uh, bare na lu ñu wax ni yonent bi alayhi salaam moo tax yàlla bind li mu bind bu la neexee man nga ni yonent bi alayhi salaam li tax yàlla subhanahu wa taala bind ko mooy li mu yéene jox àdduna bi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 pour te dire que le Gamou doit être pour nous une occasion de revisiter le message pour nous évaluer nous-mêmes, évaluer notre niveau d'application de ce message dans notre vie individuelle et dans notre vie en tant que communauté. Car c'est dans la conformité de nos choix et de nos actes avec le Coran, le message du prophète Mohammed, paix et salut sur lui que nous assurerons dans cette vie ici-bas notre bonheur mais que nous aurons le salut dans l'au-delà mbokk mi ubbi ci fàttali la lu tax yonent yi di dox pour wax rekk ni gàmmu dafa war nekk ci nun benn munasaba benn jataay boo xam ne dañu ciy dellu nafaraat jàngataat risaala gi jàngataat yóbbante bi pour lan pour natt suñu bopp nag natt sunu bopp ndax nu ngi jëfe en tant que benn jëmm ju ne waaye ndax nu ngi jëfe fekk ñun mbooloo lañu benn umma lañu benn communauté lañu benn état nekk benn nation ndax kenn umpalewul ni ci sunuy yéene sunuy jëf dëppoo ak li alquran indi ci jàngale ci loolu rek la dund àdduna di texe waaye ci loolu la dund alaxira di baaxe c'est le Coran lui-même qui dit je le rappelle le pouvoir total appartient à Dieu dans les cieux et sur la terre toute la terre le jour où l'heure sonnera sera le jour où la perte des négateurs sera consommée Ce jour-là, tu verras tous les peuples agenouillés. Chaque peuple sera jugé d'après son livre et vous serez récompensés selon ce que vous avez accompli. Et voici que notre livre témoignera envers vous en toute justice. Nous avons consigné par écrit tout ce que vous faisiez. Sourate les peuples agenouillés. Amis auditeurs, Ainsi donc, c'est la conformité entre nos actes, nos pensées et le livre de Dieu qui sera notre jugement. Si ce que Kiraman Katibin a consigné est conforme avec ce qui est contenu dans le Coran comme enseignement, l'individu aura le salut. mais que Dieu nous en préserve si ces actes sont en contradiction avec le contenu du Coran, c'est l'échec et l'échec entraînera le châtiment éternel. mbokk yi ñun ñëpp xam nañ ni alquran alkarim mooy wax li xew ak li war a xew wax na moom borom bi subhanahu wa taala suratul jaasiya mu fàttali ni walillaahi mulku samawati wal ard àdduna ak àllaaxira asamaan ak suuf yàlla moo fi buur moo yor nguur wa yawma taqumu saa bis bu ñu taxawalee penc nag di àtte jaam ñi yawma izin yaxsarul mubtiluun bis booba ngay gis ñi doon neenal li yonent yi jàngale moo xam ci weddi moo xam ci ñàkk jëfe ñooña dañuy sooy perte wa tara kulla ummatin jaathiya su dee da nga bokk ci ñiy seetaan mu ne daa gis xeet yépp dañu naan groupe sukk kullu ummatin yu daa ila kitaabiha xeet wu nekk ñu samp sa téere téere nooxa ngi nii téere ibrahima ngi nii téere isa yont yàlla muhammad alayhi salaam kenn ku ne ñu woola nga ñëw ci sa téere pour ñu àtte la yàlla mu ne al yawma tujzawna ma kuntum taamaluun bis booba lañ leen di fay lépp lu ngeen jëfoon hada kitaabuna yantiqu aleykum bilxaq gis nga téere baa ngi nii nag tey moom mooy seede ci yow te lépp li mu wax dëgg lay doon du la sosal dara inna kunna nastansix ma kuntum taamaluun defuñu woon lu dul di sotti rek li nga jëf loola rek lañuy bind foto ba mu jekk tegal la boo ñëwee ñu tegal la ni la mag yi turutul jaasiya bon nga gis ni li nu war a góorgóorlu mooy fexe ba sunu jëf sunuy xalaat sunu yéene dëppoo ak li ne ci biir téere bi ndax boo lëgee li kiraaman kaatibin bind te duñu sos duñu yokk duñu wàññi loola rek lañuy natt ndax dëppoo na ak alquran am di bu dëppoo ee ak alquran yal nañ ci yàlla boole kooku mooy kiy texe waaye bu wuutee safaanoo weddente bis booba ngay gis toskare ak yonjax loola nag kenn ku ne xam na ni mooy ubbi buntu safara yi gën a metti c'est pourquoi très chers frères et sœurs en islam vous tous qui nous accompagnez en particulier Néné Gallé Awa Sow Sokhna Aïcha et toutes celles qui nous écoutent de partout dans ce pays et hors de ce pays nous devons retenir que de ce gàmmu-là ce qu'Abdallah ibn Mas'ud radiallahu anhu a rapporté du prophète Muhammad paix et salut sur lui qui dit le jour du jugement le fils d'Adam ne bougera pas d'un seul iota jusqu'à ce qu'il ait répondu à cinq questions premièrement en quoi il a passé sa vie Deuxièmement, en quoi il a usé sa jeunesse. Troisièmement, comment il a gagné son argent. Quatrièmement, comment il l'a dépensé. Et cinquièmement, qu'est-ce qu'il a appliqué de tout ce qu'il savait. mbokk mi kenn ku nekk ci nun war teewal ci kanamam saa su nekk kàddu yi yonent bi sallallahu alayhi wa ali wax Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu jottalik lan la wax moom ki yàlla yónni gën ji mbindéef dafa wax mu ne laa yazulu qadamu ibni aadam yowma alqiyaamati min indi rabbi xatta yusal an xamsi mu ne bis penc benn doomu aadama bi du seqi benn tànk jëm fen lu dul dafa tontu juróom ñi juróomi dana tontu an umrihi fi ma dundam yépp ci lan la ko jeexal mooy ban pas-pas la toppoon yan jëf la jëf wa shababihi fii ma abla ndawam nga xam ne foofu mooy li ëpp solo ci lan la ko ràppal mu ne wa maalihi min ayna kasaba alal ji mu amoon wërsëg wi ko yàlla doon sedd ci xeet bu mën ci doon nag nan la ko fàggoo wa fi ma anfaqahu ci lan la ko dépensé ndax daka am ci lu dagan dugal ko ci lu xaram daka am ci lu dagan dugal ko ci lu am ko ci xaram dugal ko ci xaram wala daka am ci lu dagan dugal ko ci lu xaram yooyu yëpp dañ koy lijjanti wa maza amila fi ma alim li mu xamoon ci àdduna nag lan la ci jëfe bon kenn du la laaj ndax boroom xam-xam nga woon wala nekkoo woon boroom xam-xam waaye li nga xamoon rek yàlla ni defal lii bàyyil lii doxaleel lii moytul lii lan nga ci jëfe ak lan nga ci bàyyi su ko defee képp kenn ci nun bàyyiwaat xel ni faw ñu taxaw jàngataat li yonent bi alayhi salaam ni mooy li baax ñu baaxal loola li mu ne mooy li bon bu àdduna yépp àndoon ni moo baax naka alxuraan waxee nga xam ne du nekk lu baax mukk du ko nekk ci àdduna bi ndax du jur yiw du ko nekk ci àllaaxira ndax du ko jur ci kanam borom bi subhaanahu wa di ñaan yàlla subhanahu wa taala mu wërsëgal nu nu bokk ci way dég yi mën a topp loola yomb nag yal na ko defal ya rasulallah chers amis auditeurs, si tout ceci est clair, mon cher Thierno Alpha Sall et tous nos amis de Saint-Louis, Sokhna Aïssatou Diop et autres, vous devez tous savoir que le Gamou est une simple occasion pour exprimer notre attachement au prophète Mohammed, paix et salut sur lui, et à ce qu'il nous a enseigné. Mais il faut que ce soit clair pour chacun de nous que l'attachement au prophète Mohammed, paix et salut sur lui, l'amour que nous déclarons avoir vis-à-vis du prophète Mohammed, paix et salut sur lui, ne peut se manifester qu'en claquant les doigts ou en disant sallallahu alayhi wa ali quand on prononce son nom. L'amour du prophète Mohammed, paix et salut sur lui, en plus de cela, doit être un comportement quotidien conforme à ce qu'il nous a appris et enseigné dans sa vie bénie mbokk yi ñu bàyyi xel ci ni kenn ku nekk ci nun dafa wax ni day feeñal ci occasion wu gàmmu yi cofeel gu ñu am ci yonent bi sallallahu alayhi waaye mbokk yi war na leer ci kenn ku nekk ci nun leer ci nun ni cofeelu yonent bi sallallahu alayhi wa ali mënul yem ci fottasu bu ñu ko tuddee walla nga julli ci moom bu ñu ko tuddee loola naam lu war la waaye cofeel sunu diggante ak yonent bi alayhi salaatu wassalaam mu ngi war a feeñ ci sunu dundin sunu jëfin ci bis bu ne ci saa su ne moo xam dañu wéet moo xam dañu wéttaliku moo xam guddi la moo xam bëccëg c'est d'ailleurs comme lui-même le dit au verset 31 de la sourate la famille d'Imran si vous aimez Dieu dit le prophète Mohammed paix et salut sur lui dans le Coran suivez mon exemple et Dieu vous aimera et vous pardonnera vos péchés il est pardonneur et miséricordieux dis Dieu obéissez à Dieu et aux messagers et s'ils refusent qu'ils sachent que ji n'aime pas du tout les mécréants mbokk yi yonent bi sallallahu alayhi wa wax na moom nu ñu koy soppe nu ñu koy bëggee boo demee ci alquran alkarim yàlla da ko sant mu ne waxal jaam ñi ngeen in kuntum tuhibbuna allah fattabiuni su dee dangeen bëgg yàlla rek bëgg leen ma man ngeen topp ma roy leen ma bu ngeen ma royee topp ma yuhbibkumullah yàlla da leen di sopp wa yaxfir lakum dunubakum mu jéggal leen seeni bàkkaar ndax yàlla xafurun rahim day di suturaal jaam di ko tàbbal ci yërmande yu dul jeex qul yàlla ni ko waxal jaam ñi ni leen atiu llaha war rasul na ngeen topp ndigali yàlla topp ndigal yonentam roy ka fa in tawallaw suñu lànkee nag du moy fa inna allaha laa yuhibbul kaafiriin nañu xam ni yàlla bañ na bëggul képp kenn ku weddi suratu Ali Imran mais lorsque nous disons ça on peut nous dire mais comment on peut alors aimer le prophète Mohammed paix et salut sur lui et en quoi nous pouvons aimer le prophète Mohammed paix et salut sur mbokk mi ñu ñaan yàlla mu boole ñu ci ñi xam naka la ñuy soppe yonent bi sallallahu alayhi wa ali ci lan lanu mën a feeñale sunu cofeel sunu diggante ak moom boole ñu ci way dégg yi mën a topp loola yomb naka yàlla na nu ko defal في الأكوان مصطفى الرحمن جئت بالقرآن هاديا لله aujourd'hui de parler sous le contrôle de l'un de nos plus grands pionniers de l'appel islamique au Sénégal, je veux dire notre grand frère Mokhtar Seck, et sous le contrôle de tous les imams, imam Balla imam Dramé de Khairawan, imam Baba Guitey, imam Ahmadou de Saint-Louis, que le plus important le plus important est le comportement social généreux et digne lorsque nous disons que nous imitons le prophète Mohammed, paix et salut sur lui, ou que nous aimons le messager d'Allah, car lui-même, sallallahu alayhi wa ali, annonce être envoyé à l'humanité dans sa totalité pour parachever la noblesse de caractère. mbokk yi li ëpp solo kenn ku nekk war ko bàyyi xel ci bu ñuy sopp yonent bi sallallahu alayhi wa ali mooy xool lan la dara darajal moom dafa wax mu ni innama bu'istu li utammima makarim al axlaaq man li ma tax a ñëw mooy mottali jikko yu rafet yi yonent yi doon tabax bon kay sunu soppe yonent bi sallallahu alayhi wa ali mu ngi feeñ ci sunu jëflante ak euh, ñi nu wër sunu njaboot sunu dëkkandoo bërëb yi nuy liggéey ak euh, yu ni mel amis auditeurs la noblesse de caractère c'est quand ton voisin te fait confiance et ne subit jamais de ta part aucun tort de quelque sorte que ce soit. Le messager d'Allah, paix et salut sur lui, a juré par trois fois. Il dit, je jure par Allah, subhanahu wa ta'ala, que celui dont les voisins ne se sentent pas à l'abri des bawaïq n'est pas un croyant. Les compagnons lui demandèrent, qu'est-ce que les bawaïq, ya Rasulallah? Il répondit, ce sont les méfaits de cet individu. mbokk mi jikko ju rafet du làmmiñ du xol de jëf la yonent bi sallallahu ali mu ni waat naa ci yàlla ñetti yoon mu ni wallahi laa yoomin gëmul gëmul yàlla mu ne gëmul yàlla man laa yaman jaaruhu bawaayiqa ki nga xam ni dëkkandoom muccul ci bawaayi xam xaalu saxaba yi ni ko yaa rasulallah wa ma bawaayiqu lan mooy bawaayiq yi mu ni leen charruhu mooy ay loram lor bi ko ci moom et par ailleurs il dira aussi que le musulman est celui dont les musulmans sont à l'abri des méfaits de sa langue et de ses mains à partir de ce moment si les gens ne sont pas protégés contre tout ce que tu peux dire ne son pas protégés contre tout ce que tu peux faire. Tu peux prétendre être musulman, aimer le prophète Muhammad, paix et salut sur lui, mais lui ne te reconnaît pas comme tel. mbokk mi waxaat na moom ki yàlla nii ki gën ci mbindaafoon yi mu ne al muslimu man salima al muslimun min lisaani wa yadi mu ne jullit mooy ki nga xam ni jullit ñi mucc nañu ci lori làmmiñam du leen xas du leen ŋañ du leen jëw du leen saaga du leen rambaaj wa yadihi mucc nañ ci lori ay cëram du jëf len jóg rekk sabablu ngir lor mbokk jullitam boo loru sa mbokk jullit nag rawatina nga war a lor nga moytu di lor keneen koo xam ni bokku leen dara bokku leen pas-pas bokku leen jubluwaay ami auditeur Imiter le prophète Mohammed, paix et salut sur lui, c'est certes faire preuve de noblesse de caractère, mais c'est en plus de cela limiter dans sa soumission, dans son obéissance absolue à Dieu subhanahu wa Obéir à Dieu le Tout-Puissant, que le musulman reconnaît comme étant la seule autorité, puisque le prophète Mohammed, paix et salut sur lui, a dit cela dans le Coran, ma prière mes sacrifices, ma vie et ma mort appartiennent à Dieu, l'unique maître de l'univers. Je ne lui associe rien. Voilà ce qui m'a été ordonné, et je suis le premier à m'y conformer, donc le premier des musulmans. Sourate le bétail versets 102 à 103 mbokk mi jikko yu rafet roy yonent sallallahu alayhi la waaye bu loola jàllee roy yonent sallallahu alayhi ci topp ndigali yàlla subhanahu wa ci dikk ko wax na moom yàlla jottali ci alquran mu ne inna salaati samay julli lépp lu jëm ci xeetu jaamu wa nusuki samay rey ak samay sarax sama yaakaar wa maxyaaya sama dund lépp wa mamaati ak sama dee lillahi rabbil alamin loola ma ngi ci loxo yàlla yàlla rek moo ci am lu mu ciy dogal laa sharika la du am kenn ku muy bokkaaleel wa bi dalika umirt wa ana awwalul muslimin loola lañ ma sant te may ki jëkk jébbalu ci loolu nangu di ko jëfe suratul an'am ami auditeur C'est seulement quand on pourra faire la même déclaration avec la même sincérité que nous pourrions être comptés parmi ceux qui aiment le prophète Mohammed, paix et salut sur lui, et limite dans sa pratique cultuelle, limite dans ses actes profanes, en somme, ceux qui limitent dans leur raison de vivre et tout ce qui, pour eux, mérite le sacrifice suprême qu'est la mort mbokk yi gis nga li fekk mënuñu taxaw def déclaration bu mel ni bii yonent bi alayhi salaam def ni sunuy julleeg sunu lépp suñu dund suñu dee yépp jox nañu ko yàlla mu dogal lu ko soob ñu def li fekk mënuñu taxaw def déclaration bii wax ni ah sopp nanu walla roy nanu bëgg-bëgg rek la waaye nekkagul réalité ju dara jëmmal faw ñu dem ba bokk ci ñi nga xam ni ci seen jaamu yàlla ci yonent bi alayhi salaam la teg bët ci seen dund ci dundu àdduna bi moom la ñuy teg bët seen jëflante li ñuy bëgg li ñuy bañ ci moom lañuy teg bët nga ne lunettes yi mu soloon rek nga sol lunettes yooyu di xoole àdduna bët bi mu ko doon xoole li fekk lii amul sopp yonent bi sallallahu alayhi wa ali dana nekk wax ju làmmiñ bi wax cër bëgg ko waaye jëmm ji yeggagu ci nu ñaan yàlla subhaanahu wa taala mu war sugal nu nu bokk ci way dégg yi mën a topp loola yomb nag yàlla na nu ko defal شئت للإسلام ركن عز دام شأنك الإنعام أنت بعد الله يا, يا رسول الله يا حبيب الله يا رسول الله يا حبيب الله ذلك المنوب يا عظيم الجلال Tu conviendras avec moi, Tcherno Abdoulaye Dim, que Euh, aimer le prophète Mohammed, paix et salut sur lui, n'est pas des mots mais des actes. Des actes qui sont à l'opposé de toute forme de division, de toute formes de fanatisme. Car la famille musulmane, la grande famille universelle de l'islam, ne connaît pas la division parce qu'elle ignore les frontières et s'élève au-dessus des liens du sang mbokk yi sunu mbokk Tamsir Ndiaye mbokk yépp yi ànd ak nun ci bis bu tedd bi war nañu mën a nangu ni sopp yonent bi sallallahu alayhi du waxi kese waaye ay jëf la yuy yuy feeñal pas-pas waaye jëf la yoo xam ni kiy woote jëme ci di Konte ki nga xam ni mu ngi woote jëme ci man rekk may taxaw kenn du taxaw kooka day génne boppam ci kër gu rëy googu ndax kër googu xamul frontière kër googu xamul kii ñoo bokk juddu wala ñoo bokk fi ñu jóge wala bokkunu fi ñu jóge j'ai entendu le messager d'Allah le prophète Mohammed paix et salut sur lui dire ceci Celui qui se sépare du groupe et n'obéit plus jusqu'à sa mort meurt de l'ignorance anti-islamique. Celui qui lève ses armes contre ma communauté, confondant les bons et les mauvais, n'épargnant pas les croyants pour, par considération pour leur foi, n'épargnant pas les alliés pour le pacte conclu avec eux, celui-là n'est pas de ma communauté. Quiconque meurt sous le drapeau du fanatisme, qui s'emporte pour une secte ou combat pour une secte ou recrute pour une secte, celui-là, s'il meurt, meurt de la mort de l'ignorance anti-islamique. mbokk yi yonent bi sallallahu alayhi wa ali wax na te lu wax mooy dëgg mu ne man faraqal jamaa wa xaraja min attaa fa maata fa miitatun jahiliya mu ne képp ku bodde ku jullit ñi génn ci ñoom toppatoo ndigal mu ne boo deeyee dee nga deewu ceddo waaye deewuloo deewu lislaam mu ne man xaraja ala ummati bi sayfi koo xam ni bocc nga sa jaas yi song jullit ñi sama xeet wi yadribu barraha wa fajiraha nga boole ku baax ak ku bon yaa ngay faagaagal laa yataxaasha muminan li imaani doo suturaal jullit ndi ngir ni jullit la wala yafi li di ahdin bi ahdi doo mottali kullëre yi mu ne kooku fa laysa min ummati kooku bokkul ci sama xeet wi wa man qutila taxta raayatin ammiyatin mu ne képp koo xam ni ki yow yaa ngi bocci drapowu wu ceddoo ci ngay yëngu yaxdab lil asabiya yow ci parparloo ci ngay mere ci ngay kontaane yu qaatilu lil asabiya booy xeex parparloo moo tax ak sa waaso fa nga bokk aw yaddu ilal asabiya wala ngay woote ci benn kuréel boddi ñi ca des fa qitlatul jahiliya mu ne kooku deewam deewu ceddo la donc ami auditeur si tu veux exclure les sufi ou les sunnites ou les salafites ou les ibadur rahman ou n'importe quel musulman, quel que soit le nom qu'il peut se donner par ailleurs, sache que tu n'aimes pas du tout le prophète Mohammed, paix et salut sur lui, car tu ne suis pas son exemple et tu n'obéis pas à ses recommandations et tu désobéis même au verset du Coran mbokk mi boo nee da di boddi ahlu tasawuf bi wala ibadurahman bi wala salafit bi wala sunnit bi ah nga ni bon yow xamoo lan mooy sopp yonent bi sallallahu alayhi wa ali xamuloo lan mooy topp yonent bi mooy nga sax ndigalam mooy ndigali alquran puisque la Coran di croyant craignez Dieu selon son mérite et ne mourrez qu'en étant musulman pratiquant agrippez-vous à la corde de Dieu et ne vous divisez point Reconnaissez les bienfaits de Dieu qui, par sa grâce, a uni vos cœurs alors que vous étiez des ennemis irréductibles et a établi la fraternité entre vous alors que vous étiez au bord du gouffre de l'enfer. C'est ainsi que Dieu vous montre ces signes pour que vous soyez bien guidés. Constituez une oumma, un comité, dirais-je, dont le rôle sera d'appeler dans la bonne voie. d'ordonner le bien, d'interdire le mal. Ceux qui le feront seront les bienheureux. Ne faites pas comme ceux qui se sont divisés et on sombré dans des disputes et des divergences coupables, inutiles, après avoir reçu les enseignements de Dieu, car ceux-là subiront un châtiment exemplaire. mbokk mi ngir dañu lay wax ni ki woote jëm ci boddi konte dàq jullit bi ci kuréelu jullit ñi boole kii ci kuréel gi alquran àndoog moom ndax borom bi dafa ne yaa ayuha alladina amanu yéen jullit ñi ittaqullah xaqa tuqaati na ngeen ragal yàlla ci ragal bi tolloo ak gëddaam wala tamutunna illa wa antum muslim ngalla waay góorgóorlu leen ba bu ngeen bu dee di leen dab fekk yéen a ngi jooxe julli yeeg woor yi nekk jullit wa'tasimu bi hablillahi jamian nangeen ngeen mooy yéen ñëpp ci buumu yàlla gi wala tafarraqu bu leen séddali ko bu leen tàqali ko wazkuru nicmatallahi aleykum id kuntum fàttali fàttaliku leen xéewal yi leen yàlla defal ngir bi ngeen nekkee ceddoo da ngeen nekk ay noon fa allafa bayna qulubikum mu ñëw tàppe seeni xol fa asbaxtum bi nicmati ixwaanan ci xéewalam rek ngeen mujj doon ay mbokk wa kuntum ala shafa xufrin xufratin min annaar fa anqazakum minha ngeen nekkoon ci pindu safara bu yàll di waaja daanu ci safara mu xettali leen jële fa kadalika yubayinu llahu lakum ayaati laallakum tahtadun yàlla daf leen di leeralal mbir yi pour ngeen mën topp njub wal takun minkum ummatun yad'una ila al xayr am ci seen biir kuréel goo xam ne day woote jëme ci lu baax yaamuruna bil maarufi wa yanhawna anil munkar ñooña ñu dooleel leen ñuy ñuy santaane lu bon lu baax waaye di tere lu bon wa ulaayika humul muflixuun bu ngeen ko defee de di ngeen di texe wala takunu kalladina tafarraqu bu leen toppandoo ñi séddali xam nga am na yonent fi jaaroon seeni nit séddali ko waxtala foo wuute xuloo xiiroog ngaayoo guddeeg bëccëg min di ma jaa amul bay jaahumul bayinaat gannaaw bi leeral yi dikkee ñu jox leen lu leer nañ lu leer bu jàllee wuute waratul am wa ulaayika lahum azabun azim ñooña bu ngeen leen toppee ñoom ci mbugal gu rëy lañu jëm ku topp ku jëm ci mbugal ci mbugal ngay soobu ni moom ka Jeesu subhaanahu nous accorde la grâce de faire partie de ceux qui perpétuent le modèle de vie, le modèle de gestion publique et privée, le modèle de gouvernement, le modèle de d'adoration que le prophète Mohammed, paix et salut sur lui, nous a enseigné. Et nous souhaitons alors un bon gamou, c'est-à-dire une bonne révision du message du Coran et de la Sunna à tous ceux qui se mobilisent pour cette occasion ñu ñaan yàlla subhanahu wa taala bokk ci ñiy dégg di mën a topp yomb nag yal nu ko defal يا عظيم الجاه كنت للأسرار mbokk yi gannaaw bu nu ñaanee yàlla subhaanahu wa mu wërsëgal nu nu bokk ci ñiy wéyal jàngale yonent bi sallallahu alayhi wa ali di ko ñoŋal ci seeni jëf mu wërsëgal nu nu bokk ci ñiy saytoo seen dund ni yonent bi sallallahu alayhi wa ali jàngale ñu saytoo ko sunu dund moo xam kenn lañu moo xam mbooloo mu wërsëgal nu nu bokk ci ñi nga xam ne ñi seeni gouvernement seeni réew mu ngi dox ci li yàlla subhaanahu wa taala rëdd ni nii la réew war a doxe nu tàllal sunu loxo fekk ñu ngi àndoon fii ci rajo Sénégal international ak sunuy mbokk soxna Aysatu Sarr Mouhamad Chérif Diop nu tàllal sunu loxo yàlla subhaanahu wa taala ñaan yàlla yàl yàlla doon suñu ndimbal bokk yàlla bu nu yàqu yàlla bu nu yàqule topp yàlla gën a jafe ci jamono yi nuy dund yàlla na nu ko yàlla yombal mooy yàlla fi gën a yomb yàlla nañ ci yàlla musal yàlla defal nu mujj gu rafet làq nu fu yàq eggul yiir nu ci malaanam suturaam yàlla jubal nu jubal sunu njaboot ubbil nu bunt muur ak wërsëg bokk yi lu nu am yàlla na noom yàlla lu nu ñàkkit yàlla noom yàlla bi jaa i nabil mustapha sallallahu alayhi wa ali asalaamu aleykum wa rahmatullah wasalaatu wasalaam ala ashrafil mursalin sayidina wa habibina wa nuuri qulubina muhammad wa alihi wa sahbi يحمل التكريم صلاة الله يا